édition 2023 bu pèlerinage ca bërëb yu sell yu chrétienté nar nañ ko amal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août jëm fukki fan ak ñett ci weeru septembre bi ñu dëgmal xibaar bi comité interdiocésain bu yor wàllum pélérinage catholique bu Sénégal di ko xamle lu toll nag ci ñeenti téeméeri pèlerin nar nañ leen a ji maanaam juróom ñetti u juróom fukki nit ren it paas bi yokku na. ci juróom benn fukki junni li ko waral moo di lépp li yokku ci dem beeg dikk bi ci njaay meeg njënd mi ak ci fépp foo mënti dal ngir nag ñu mun a méngoo ak lépp li nga xamante ne wareef la ngir ñu amal démarche bu foi bu am solo bilee ci képp kuy catholique Simpec nag di woo pèlerin yi ñu baral yëf ndax lépp luy këyit administratif mun a yemb. ñoo di ñu teel a bindu am sa teketu paas dem bindu ci suñu secrétariat fële côté cathédrale am sa passeport def sa bilan santé visite contre visite. def itam li ñu wax ren extrait de baptême ndax ñu mën a xam ci ban paroisse nga bokk. édition 2023 bi nag ñu placé ko ci signe bu communion ci esprit bu synode ci synodalité Simpec nag tàyyiwul benn yoon ngir delloo njukkal njiit réew mi ak gouvernement am ci lu soxal gunge bi ñu leen di defal ci wàllum administratif technique wala sax financier saa édition pèlerinage di ab.